ba li mu yéene lislaam yéene ko xam-xam yéene ko julli ci àddina bi yëpp yàlla ko yàlla mottali tam fekk ñu fi mm-hmm. Mm-hmm. di àndaat ak yéen ci émission bu am solo bi nga xam ne alxamis bi jiitu ci weer wi lañ koy ànd ak yéen ànd ceeg borom xam-xam sëriñ Maxtaar Kebe Cheikh Salif di gërëm itam émission ki bi nga xam ne moom lay def ak di ko rafetlu ak suñu mbokk suñu xarit sëriñ Mbacke Sourang mu jëm ci yaru émission boo xam ne émission bu am solo la te képp koy teew rek xam ne ay njëriñ yu baree bare nga ci biir noonu la ñuy ñaanale itam directeur général bu C3S muy Alaaji Sëriñ Seck di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal njabootam ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk liggéey bi di ko doxal mu jëm ci alxuraanul karim moo xam concours bi la moo xam émission yi ñuy def la muy Alaaji Fàllu sekk ak Alaaji Dam Touré bëgg mburu di sant itam suñu technicien mu Sëriñ Moustapha Sarr ak mboolem ñi nga xam ne rek ñi ngi topp émission yi ci YouTube bi di ko rafetlu di leen wax rek ngeen gën abonné ndax émission yi njëriñ dong moo ci nekk li ñuy waxtaanee mooy téere bi gën àddina gën àllaaxira te mooy alquranul karim suñ borom ne woon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusalun sëriñ Moxtaar laataa ñuy dugg ci waxtaan wi tey dañ lay bàyyi nga nuyu ñi ñuy seetaan di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Cheikh Omar Silla maa ngi lay nuyu di nuyu bokki nuyu ñi nga xam ne ñi ngi abonné ci yaru ak yare di topp émission yi guddi ak bëccëg ci góor ak jigéen mag ak ndaw tàmbalee nuyoo bi nag ci alaaji sëriñ sekk mi nga xam ne mooy njiit li tekki sëriñ Fallou sekk mi nga xam ne ginnaaw yàlla lii ci ay xalaatam la bawoo tey loo xam ne mi ngi jëriñ duma wax ne waar waaye jullit yëpp kon ñoom it ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare delluwaat di nuyu sëriñ Mbacke Sorong sama mbokkum daara mi ma taqali ko léegi ci benn émission di nuyu sëñ Moustapha Sarr di nuyu itam sëñ ture bëgg sëñ Dame Touré. Mm, bëgg mbur jooju dama la ci jàppale. <laughs> maa ngi koy siyaare bu baax a baax. di siyaare bokk yëpp. Mm-hmm. di waaye rawatina nag bokki daara. Mm-hmm. sëñ Xaadim Ndiaye ak mbooloo mi mu jiite ñu ñu yëngatu ci yaatal mbindum alxuraan maa ngi koy nuyu di ko nuyuloo mbooloo moomu ci góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina nag sëñ daara ya ak dongay daara ya nga xam ne. ñooy xëy ca daara yaa ko wàcc. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa sëriñ Maxtaar ku ne xam na ne émission yi jàll yëpp ni ngi woon ci Baqara ba tey jeexaguñ jeexalaguñ ko muy saar woo xam ne saar wu bari ay njëriñ la waaye saar bu tombeek événement yu baree bari ci lislaam bokk na ci événement yooyu mu tombeel muy weeru koor bi nga xam ne ci lañu bëgg a dugg muy weer wu bari ay njëriñ waaye weer woo xam ne suñu borom ci boppam moo ko fonkal boppam ba noppi wax njëriñ yi mu am ci biir alquran boo ñu doon comparel tey événement boobu am ci weeru koor ba noppi nag duggaale ci biir baqara ana lan nga ñuy wax chahru ramadan alladi unzila fihi weer a ñu ne waaw mu ne weer woowu mooy këmb kaayal alquran alquran lu tedd la te buñ ne or baax na xob bi koy muur du niroog xob wuy muur leneen lu dul or mhm. danga fekk ca xob wa ay produit yu ñu ca def ngir bañ or ba xumaat mhm. ngir bañ or ba sànku ba ci boîte bi ñu koy wutal sax da gis muy boîte bu rafet bu silvisé waaye bu dëgër lay doon kon nag chehru ramadan mooy paquet bi nga xam ne ci biir lañ dugal téere bi yàlla bi lépp looy denc nag nu loola mel dana niroog paquet ba ca kaw loolu mooy chehru Ramadan luñ dugg ci détail yu Ramadan mooy lan ah kay Ramadan dafay firi ab gël mooy lu tàng jir mhm. ci ñaari anam dañ ne saison bi Ramadan di ñëw day fekk aw tàngoor di am. Mhm. ñu ne déedéet Ramadan dafa gaaw ci lakk ay bakkaar. ni gël boobu gaawee ci lakk karaw. Mhm. loolu ba tey mënees na koo dégg. Ramadan bu jàllee shawwal moo ci tege. shawwal mooy dañuy. turu weer wu nekk rek am na lu mu nirool ci xew-xew. seel yi ñu dese woon ca yàpp wa. weer gi ñu koy weer moo ko tuddee shawaal. dul da mooy weer woo dañoo toog duñ géeri mooy boroom jataay ba. dul xijja mooy weer wi ñuy dem màkka. Mm-hmm. muharram mooy weer wi ñu araamalaat xeex yi safar mooy weer bi nga xam ne kër yi day wéll nit ñi ñëpp dem nañ guerre yi safara mooy dara nekkatu fa góor ñëpp gàdd nañ seen gànnaay dem safar euh, lu ci tegeeti rabiul awal mooy première lolli bi rabiul thani mooy digg lolli bi jumaadal ula mooy bu déegi tàmbalee ñiis jumaada jaam ci jaamit dong la jóge luy luy fenn bi jumaadal ula déeg bi manqué na tuuti ndox mm-hmm. jumaada thani déeg ba wow na ko ngang ndox léegi tegaat ci ban Euh, jumaada ula jumaada saani mm-hmm. rajab mm-hmm. di jumaada ula jumaada saani rajab shaaban rajab shaaban mm-hmm. rajab mooy delloo na jees yi ca mbar ma shaaban mooy di tashaxu bi naasi li talabil ma nit ñi dañoo wuti woon ndox jamonoy maral la asalaamaaleykum wa rahmatullah maa sha allah li ci des ramadaan moomu nag kon day far ay bàkkaar rek laa bëggoon a indi far jàllaale ca weer ni gël boobu di mën fare kawar waaye nag mbokk yi bu ñuy woor weer koor am nag am nag soññee de waaw ya ayuha alladina amanu ni daa am ni daa xaas ilaahi la yàlla bu ne yaa ayuha naas ñëpp la woo mooy marchandise maa nga ca marché ba yaa ayuha mooy yéen ñi fi jëloon marchandise mi démb tey samay client yaa ayuha alladina kafaroo yéen ñi sàccoon marchandise mi ba naru leen a fay ñetti woote yi la yàlla woo yaa ayyuha alladina amano nag bu ko yàlla waxee génnee na kon marché bi ñu jëloon ca bagage ba la wax ne ñoom la woo kutiba limaada kutiba li tax mu def ko damir joo xam ne leerut mhm. mubham bi mhm. bu ko neexoon ne kataballahu aleykum siyam mhm. sax mu ne ba mu def ko mam niw lil majhul daa bëgg nga ne waaw lu mu lu ñu bindati parce que daa bëgg wax ji am importance moo tax mu bëgg mu bon mu lënkale kook sam xel dem laaj li ñu li ñu wax katabalaahu nag doo wax ku ko def ak nu mu ko defee mu ne côté ba nga ne waaw lu ñu lu ñu bind ak ku ko bind faan jooju nga xam ne mooy allahu bu ko nëbbee da nga ko laajte mar mu ne ko mam niyun lil majhul aleykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum mooy seeni moroom a ko fi daan def buñ leen ëpp jom kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum lii ma def daanaa ko deflu am na ñu ko daan def rikk bokk leen ci ña koy def laallakum tattaquuna mépp mbir moo xam ne daatu ahamiya baaliga la yati bi bihi alquran bi taqwa ba mam demal ubbi sab kaamil lépp lu ñor yàlla te muy loo xam ne jëfi xol la dana ca lënkale taqwa ragal yàlla laallakum tattaquuna mooy illab ngeen woor mooy illab ngeen ragal yàlla ci yaa yoon ayyuha naasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida muy tasaaluuna bi wal arxaam demal ci bépp aaya bu yàlla wax ci alquran ba ca defaree mbokk lépp lu mën a doon bu itteelee yàlla dana jël ragal yàlla teg ca kon mbokk yi koor luy njëriñam mooy dañoo bëgg nit ki ragal yàlla su ko defee koor nag bu ñëwee détail bi dana gudd danañ seytaane bu ñu ko posé question danañ ko tontuwaat ci yeneen jamono lan mooy jéngu saytaane ak lu tax nit ki ñu jëng seytaane ba noppi nit ki defaat ci biir koor ay njaaxum shay'un aaxar leneen meneen moomu nag di loo xam dafa tënku ci ñaari farata ak ñetti sunna siyaamuna lahu faridataani bila ziyadatin wala nuqsaani niyatunaa wa kafunaa an muftiraat li wajhi baaqin mutcimin bitayibaat ñeex na boo yéenee woor weer wi te fego ba dogoo ci weer wi loolu mooy farata yi su dog jotee nga gaaw dog bala ngaa julli timis te boo bala ngaa xëdd bàyyi ba fajar ndax sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la te sa làmmiñ bi nga bañ cee génnee lu ñaaw ñetti sunna la am allahu akbar koor gaangoo mhm. borom xam-xam yi sax am na masala boo xam ne dañ ko posé ne bu nit ki ne woon fas na maa yéenee woor weer wi tëdd weer wépp nelaw ko bañ ne tey la kori am na koor mhm. waaw niyatun wa kafun la yéene na te lekkut <laughs> moo tax dañuy delluwaat ci aslul fardiya bi mm-hmm. ginnaaw yaa ne woon yéene fegu mm-hmm. waaye naan la yéene naa ko ba mu jeex bi ki dee lékku ma ci mm-hmm. kafu naa an moftiraat kafu anil moftiraat weesuwul léeg ko diiran koor gi dëgg la kon su boobaa loolu la loxsu la rek loxsu euh, fiqhi yi la il faut ñu koy aw la waaye kenn du def loolu xam nañ ne kenn du ko def kon daal li ñu wax mooy yéene la ak wattalu lay dog loolu yii jaar ci gimiñ yi mën a jaar ci yeneen barab yi nga xam ne docteur yi ñoo koy wax yooyu rek lañ ciy watandiku mm-hmm. kon boo koor a ngoog mm-hmm. lu luy sori lu njariñam mm-hmm. ñu ragal yàlla mu bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne ci kattan lañ koy defee juróomi xam sa yooyu daf cee am yoo xam ne boo mënul baal la tudd koor mii bokk na ca ku feebar ba mënoo ko te doo ko man diir ngir dund nag la ñuy wax bu fekkee doo ko man ci tàngoor waaye bu sedd ba dikkee da ko mën da koy def dangaa feebar nii bu waaye bu ci kanamee da nga wér da koy def waaye nag ku ko mënul da koy baax aj màkk ku ko mënul da nga koy baax asaka ku ko amul doo ko joxe julli képp ak gëm lañ gis force nga def ko ba ba nga fiy bàyyi ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Maxtaar ci jàngat wu am solo woow nga def jëmale ko ci weeru koor rawatina histoire bi mu am wala relation bi mu am ak suratul baqara nga xam ne doy na comme ni mu ko waxee mu ne shahru ramadan alladi unzila fihi alquran ah. ci weeru koor la yàlla wàcc alquran sëriñ tubaa wax na ko ci boo demee ca wakkaana xaqan mm-hmm. naajaytu rabbi bi shahri ramadan shahril amaani wal muna wal fayadan ndax ci la ci la njëriñ yi di bàyyi ko mm-hmm. nga leeralaat du am solo itam mu jëm ci baatu ramadan ci boppam mm-hmm. muy muy dóomu tàng boobu noonu muy lakkee karaw noonu la weeru koor di lakkee ay bàkkaar yàlla nañu yàlla lakk suñuy bàkkaar ñun ñëpp euh, heure bi daaw am na ñu fi fekku leen fi yàlla leen yàlla yërëm fa ñu nekk ñun ñi ñun la fi fekk wala nar ñu fee fekk yàlla nañu fekk yàlla ñu fi yàgg fekk te luñ ci jaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul kon ñu dugg ci waxtaan bi rek muy waxtaanu boole bi nga xam ne moom lañ leen di amal te moo tax a jug moo tax a jug waxtaan wi nag ndax lii lépp rek dañ ko cee dolli waaye waxtaan wi li ko tax a jug dëgg mooy mooy boole li may faral di wax Serigne Saliou Mbacke daan na wax ne alxuraan bu dee ab tool la doo boole mooy li ko ñàkk ba tool ba ruurul kon am na solo rawatina ñuy jàng alxuraanul karim kon sëñ Maxtaar suñu laaj bu njëkk mi ngi jëm ci naahu yóbbu sadda. loolu moom lan la ci wàllu boole. naahu yóbbu sadda ñett. ñett la ci alxuraan la ci alxuraan. muy ban ak ban. maa bayyannaahu. Mhm. laan. fa askannaahu. moomin. Mhm. Mhm. innamaa fatannaahu njombaan. njombaan mooy daawuda. njombaan mooy daawuda. ñett yooyu foofu ngay fekk naahu yóbbu sadda. jërëjëf sëñ Maxtaar ci leeral yooyu. ñaareelu laaj bi walaa ji daala. dañ ne walaa ji daala ñuul nga laan. istibdaala ñuul nga jigéen. ji daala naa naarub xóot. daa la rek la wala ji daa la istib daa la ji daa la na nga xam rek daala la ngay waxal mhm. waaye wala ji daa la ja ca laan liif ga day ñuul mhm. istib daa la ja ci jigéen liif ga day ñuul mooy dañ koy def liif gu ñuul du xonq mhm. waaye ji daa la naa nag liif ga day xonq te lépp daala la jërëjëf sëñ Mbàkke Soor xam naa xelam dana dem ci arut ndax baatu daala daala jooju mën na laa yóbbu tuuti ci xaafiya jërëjëf sëriñ Maxtaar ci lu am solo boobu ñetteelu laaj bi xijji sidda jiim xijji sadda jiim dañ ne ñu ngi koy tënkee ci njeego la njeego mooy juróom-benn mhm. nañ xam ëpp ci boole mu ngi jóge ci suñu mbokki xalpulaar yi sadda jiim njeego mhm. ñu koy tënkee fawa xala mhm. xafa fawa xala xafa fa man taa ajjala laan wala yu ajjilu yunus xajjal naa lisraa la ajjala njenge xajjil lanaa njombaan fa ajjala fatxi xijji sadda jiim jeego mm, ci leeral bu am solo boobu jëm ci xijji sadda jiim axa shidda mm-hmm. axa shidda moom lan la ci boole axa shidda juróom-yaar juróom-yaar la ci alxuraan wa man taaxara laana layn axartani lisrail wa ma taaxara fatxi aw yetaaxaru mudathir wa axara qiyaama lawla axartani munafiquuna wa axarat baarub linfitar axa siddara njeego jërëjëf jërëjëf muy suratul infitar jazakumullahu xayran ci leeral yu am solo yooyu yu am solo yooyu jëm ci wàllu boole juróomeelu laaj bi mi ngi jëm ci gàtt shidda gàtt sidda juróom baat bi dafa gàtt. Mhm. doo boo ko xoolee du génn ci ñaari leetar. ñaari leetar waaw ñu ne gàtt sidda juróom. Mhm. aladdu laan xudda mbargaan mittu yaar xabla hansa ak ay zaama mittu yëpp a nga mareem jëddu jinni fakku baladi. muy suratul baladi muy suratul baladi. laa uqsimu bi hadal baladi. wa mhm. anta xillun bi hadal baladi jërëjëf Serigne Makhtar ci leeral yu am solo yooyu. jëm ci wàllu alquranul karim. suñu laaj bu mujj rek mooy ki nga xam ne day topp émission yi. en tant que ku xam boole. gëstu ci wàllu boole. ana lal nga koy dénk par rapport ak yii ñuy topp. jërëjëf euh, sëriñ Omar maa ngi waat di di la sant di sant sëñ Moustapha sama mbokkam daara sëriñ Mbacke Sorong di nuyu mbokk yi ñu topp yépp nañ xam ne xam-xam. fi suduri laa fi suturi xam-xam day ne ci dënn waaye du nekk ciw këyit. Mhm. defe naa imaamu Shafii ba ma juumut. moo mosoon a dajale kàggoom dem di jàngi addu kalpe ba addu kalpe ko dem ak kàggu ga mm. mu amul naqar daal ne xam naa ne su ma ko mokkaloon bu demee danaa am lu ma dese dëgg la ca la jóge nag di mokkal <laughs> ba bu ëllëgatee bu ñu jëlee ay téeréem mit xam-xamam des ci dënnam mm-hmm. xam naa dana niroog la borom xam-xam ne ilmi maai xaytuma yamamtu yatbauni sadri wiaaun lahu laa jawfa sinduuqi in kuntu fi lbayti kaana al ilmu fiihi maai mm-hmm. aw kuntu fi suuqi kaana al fi suuqi mm-hmm. kon xam-xam ci dënd lay nekk macha allah mm-hmm. buum googu di romb ci lu dëgër loolu di pindub teen ba yàgg mu def jeexital fa jeexital joo xam ne su ma ci tegee sama baaraam mu dugg ca ku ne xam ne ne buum ñëwut ba mën a dagg ab teen teen nooyut ba ak bu mën koo dagg waaye jàpp ta bàyyi rek. Mm. bu set kenn ñëw reddi bu ëllëgatee kenn ñëw reddi ba yàggee jeexit am fa. dëgg la ñiy jàng xam-xamu boole loolaa leen di digal. Mm-hmm. loo ci dégg mokkalal yaa ko moom. Mm-hmm. la ca des déglu ko. Mm-hmm. su dikkee nga boole kook la mokkoon. te nag kenn mënta am xam-xam te amoo pas-pas. dëgg la pas-pas mënta am njariñ te feek amoo ak sax akuk bëgg akuk sopp ci la ngay wut. dëgg la kon biñ gàtt sidda tey ku ko xas ba man fépp fu gàtt sidda nekk ci alxuraan xam nga ko saw làmmiñ it mokkal na ko nañ mel na góor ga jàmbaare woon lool nag doom ja daa dem jàng alxuraan mokkal bind kaamil indi góor gi ne ginnaaw doomam mokkal na bind kaamil daal dara mayu ko ko dudul way mm-hmm. xaar may may fas yéene way tàmbalee bis mi muy bindam bu ca suba saa laahi di bindam bu ca ëllëg saa rahmaani di bindam bu ca ëllëgee rahimi di bindam ba faatiha jeex falaqeeg naaseeg lexlaas ak wa ida laqad radiya yëpp par benn baat lay wax par bis bi doom ji jàngee ba ñëw nag fekk mu naan wa id na taq nal wa id na taq nal doom ji romb ko ne ko ah bàyyi jabal mu ne ko ah doom jabala bindub ëllëg la hmm. wa is na taq nal doy na ma tey bu ëllëgatee ma jàng jabala est-ce que loolu yi day kum ko jaral hmm. defe naa ne booy topp ay boole mhm. alxuraan te mhm. xamoon ca dara mhm. ñu wëlbatikuwaat di la ko leeral te buñ fàtte ne ay boole ñi ko am laa wax de wuñ ko ci benn barab dangay dem ci sëñ daara mu jox la la mu am du yut ci yow nga dem beqiwaat ci beneen sëñ daara xool ma sëñ bi doo dem mukk na nit jox may boole mu wax lay boole déedéet boole yi ay barab yu bu bëri ngay jaar da ngay baqara ba naasi ngay beq ci kenn mu jox la boole yam am ba mu jeex mu wóor nga demaat ci beneen sëñ daara di ko xëyal di ko gontul féete ca daaraam di beqiwaat par nisif ba alxuraan jeexaat mu jox la yam am. waaye foofu itam sëñ Maxtaar am naa fa laaj yéen ñi nga xam ne fànn bi bëreetul mu ngi raar ndax am ngeen i projet ngir bind ko fi bàyyi ko fi ngir génération yi ñëw. incha allah suwaal waji wa munasib fi makaani. barab question bu am solo la ci palaasam. li ñuy def nii dara jiituwu ko ci ba ko fi. ndax defe naa shabaka alamiya muy sendalu àdduna boobu ñuy wax YouTube. Mhm. lu fi xas ba fii ba yowmal xiyaam xaw ma ba xam tubaab bi danañ ci xewal dara am déet waaye buñ ci xewalul dara lu fi dugg lu nekk c'est fini jooju ñu wax mhm. jullit tubaab mhm. dana ko niru mhm. ba ca desit mooy ñi ngi créer ay centre maa ngi koy wax ak sëñ Mbàkke léegi bi ñu bëgg waxtaan muy barab boo xam ne bu ñu ko amoon tey tabax ba ca war ñu tabax ko dañuy wut ay gone di leen former tey ci misaal su ma amoon man trente personnes du ma ne yuy daal alxuraan déedéet yoo xam ne dañoo toll ci beqi di leen bindaloo nisif huit mois yu ne ma génnee dofan benn benn benn mbooloo moo xam ne ñoom ñëpp danañ complété ci ay boole wala yeeka ma koy bind ndax lii lii boo ko bindee bàyyi feet dëgg la mbind mën naa yàgg mhm. waaye ba ci kanamee wax yi nii dong doo gis ko la ko jàngal suñu dëgg la il faut que mu toxoo cib dënn dem ci dënn dugg cib dënn mhm. jóge ciw làmmiñ mhm. dugg ciw làmmiñ su ko defee loolu mën a am continuité su dul loolu du sotti jërëjëf Serigne Makhtar Kébé ci leeral yu am solo yooyu di leen sant di leen gërëm mbokk yi ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñi ñuy seetaan di gërëm waa Kajoor waaye di gërëm waa Njaareem di gërëm waa Touba yépp nag mbooleem fu daaree alxuraan ne ci biir réew mi rek ak fu mu a nekk rek ñu ngi leen di leen ziyaara di leen balu ak di leen ñaanal jàmm ak tawfiq xam ne émission bi waa daara ko moom képp kuy jullit mën nga cee jëriñu waaye nag particulièrement waa daara mhm. di ñaanalaat alaaji sëriñ sekk yàlla na yàlla guddal fanam mhm. yokk ay man mënam ak ñi nga xam ne ñoom la teg liggéey bi ci seen loxo ku mel ne alaaji Fallou sekk ak alaaji Dame Touré bëgg mburu mhm. di santaat suñu wëllëre sëriñ Mbacke Sourang miy def émission yaru ak yare ànd ko sëriñ Makhtar Kébé waaye di sant itam suñu technicien sëriñ Moustapha